waaw salaamaaleykum mbokk internet Gounass TV bëggee waa nañ leen tey dalal nañ noonu beneen daanaan benn xale di euh, Mbaye Difoncer 2 su doon Zos Junior nag Zos 90 léegi tey mu change tur indi ko mbay Difoncer dañ lay bàyyi nga nuyoon suñu mbokk internet yi si Gounass TV Mbaye Difoncer. Malick Charon la di nuyu internet Gounass TV ah. Hmm. di wax ni yàlla jëm kanam nekk télé. te allah day am parce que ndaw bi ko yor nangu na liggéey. Hmm. waaw ñi koy ñaanal. waaw moo màggandoo defandoo lépp. waaw ñu ngi bëgg waa Gunaas di bëgg waa Baxdaad surtout gi ma dëkk. waaw Bax ma di bëgg waa Gétti Mbaar guy ga marché bees ñëpp ngeen bëggee di bëgg sama turandoo mbay di foncé numéro un di ko siyaara waaw. di foncé la gis gaan waaw sa combat bee passé ba léegi gaan séenatuñ la. waaw dëgg la waaw bëri naa ren waaw bëri am ci ay waaw par avertissement ñàkkee ko. waaw di ko sant suñu borom bu baax. dëgg la di ko sant suñu borom waaw. loolu moom waaw di ko sant suñu borom xam ni suñu borom loolu la dogal. Mhm. waaw ñun sorti yi mu def neex na mais dama dem ba si biir. Mhm. xam rek am si ay gàllankoor. mais lépp sant yàlla la. Mhm. waaw di wax nii rek gars yi nan bàyyi waaw mbër tey daan ñëw ñàkk ñu xalam ko. suñu borom mooy dogale noonu suñu papa Balla Gaye nii di nga lim fi def. ak xool ko fi mu mujjee instant yii suñu borom mooy dogal. te ñun ay xale ñu ngi entraînement di liggéey. nañu ñaanal rek. wax daal nañu ñaanal. ak Serigne Mbamba. ñaari combat nga def sos. euh maay def 5 combat. ñaari victoire. trois victoire deux défaites. kan mo la ci daal. waaw son premier combat la daanu. dernier combat pour avertissement. mën nga may fàttali ci sa combat yi kenn ko si jàpp rek wala ñaar yoo xamante ne yaa leen daan. maa leen daan. waaw Caxso. maa ko daan. daan doomu saafeen bi bëre gannaaw combat instant yi. waaw comme da nga da xaw kon yow xaw nga raté ci ko ci la ah wa légui yow dafa melni da nga xawa retard tout ci lamb waaw retard retard parce que lamb ji am mafia quoi am moy tante li tan ay boy di len jox ay combat bañ ñun te boy bo démé dañuy dañuy melni duñu bañ sax mais dañ nan ñoo mën ci lamb te lamb amatul loolu boy ni ñu jël suñu morom ni ñu est ce que yow do li ben comme boy ni kay defé li ben fond jël jox ko promoteur mu jël tëggal la grand combat gaa yi bëri gis naa noonu la ñuy def. waaw loolu la loolu la gars yi di def. Mhm. waaw jël benn deux cent mille jox ko promoteur mu jël ko parrain. Mhm. tëggal la combat. Mhm. mais loolu daa fekk bokkoo si làmb. dëgg la Malick bu bokkoo si làmb dëgg. li nga war a jël da ngay jëli. te ñun dañoo mbapat xam làmb bokk si làmb. waaw làmb ñu ñu dugal suñu bopp. te buñ tëb rek waaw kon xëcc ñu ne ñu kaay bëre.

kon lan moy problème bi hmm. demé jël boy yi fi nak bo jël boy yi dañu nuroo am mbooloo hmm. bo ñu jëlul si kanam dañuy bëgg a jël mu am por nga am problème hmm. après da ngay muju bàyyi lamb loolu la rek parce que Gounass ak Baxdaad bu tuyé jugee rek marché bees lycée waaw bu jugé billahi wallahi do ñu atal dara national ba ngi dañ dox waaw amul jëloon amul dara suñu papa mbay di foncé ngi fii dañuy jëndal ay bolog ñuy bëri ji ay Tafa Caam ak waaw ay alaasi wéeru gars yi nga yow pour dem si promoteur proposer ko benn làmb mu mu tëggal la combat waaw man man ngi may woo sax hmm. ñu ngi may woo di ah, ñu ngi lay woo di la proposer saa yan combat lañ lay proposer waaw bëri na hmm. xam rek booy yi day mbel mbel mbel mbel rek hmm. waaw man saa bu dimanche bu amee bu làmb amee ba mu tas barki baa mu ñu woo ma na ma yàgg diw kon bokk naa si làmb. bokk nga si làmb. waaw kon kenn mënut maa bañ. mais lu waral comme combat yi du taxaw dañ lay proposer. mbër mi dañuy dem ba si biir. Hmm. ñu fotaw ñu dem woon ko mbokkam. Hmm. mu ne non bul jël kii. wutal hmm. yoon beneen yoon. dëgg la naa def loolu. waaw. man maa ngi fi bëri. mais yaa ngi sa yoon yaa ngi. maa ngi entraînement contact yooyu yëpp naa lu nelaw ba benn heure. dem xëy ngoon cinq heures ma quitté dem entraînement. dëgg la maa kenn du ma séen naan ana mbër mi waaw ah, loolu am na. parce que Serigne Bamba. na si gars yi bàyyi xel. mbay di foncé. mbay di foncé numéro 2. jeex na na si gars yi bàyyi xel de. Hmm. yéen waaye nañu ñëw jàpp si. dëgg woo ñëpp nag. Hmm. ñëw jàpp si. lan ngay tàggatoo. waaw di sant sant sama waa ko di sant sama yaay. Hmm. sama waa kër. waaw sama jabar bu mag maa ngi sant bu baax sama mag yu nekk si kaw. ah mel ni Matiga Dieynaba Daba ay ñoom Maguette samay mag ñu bëgg Fallou Sow jiite ñëpp dañuy jàpp samay combat. règlement ñoo koy gérer. surtout Maguette tapis rouge. Mm. waaw sama papa fa mu tëdd yàlla na la ma ñaanal. la ma sant yàlla bu baax. dëgg la noonu la demee noonu la demee. ate jaajëf kontaan nañ ci yow Mbaye di Fonse junior mu ngi noonu grand champion nii lay demee ci Gouran chaque jour rek ak benn xale ñu génnee ko wan leen ko ngeen mun kaa xam bu baax a baax jaajëf kontaanee na leen jaajëf.